وثقت برب الحرب جزي الجود والعفو مع المصطفى والآل ولمولد صحبه وثقت مع المختار قد ما لهوي وقاني به سوئي ولي كان بالمنى قديما في امتدائي محمدا خديما فيهم تدعي وسيلتي عليه سلام الله يمولي ذا فسوي ولدت خديما فيهم تدعي وسيلتي كل ذي المنهن وزايا والربة عن المصطفى خل غير عايز الغلب وجيه وصول الوعي وسيم ووهاب وزير وسيلة aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan MK TV ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo ci barab bu tedd bii di jumaay Touba ci bis bu mag bi ñu nekk di bisu fukki fan ñaar ci weeru gàmmu ñu ciy fàttaliku gën ak àddina sangub sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni ko daayira muxaddamatul xidma baaxoo defee at mu jot yàgg koo def ci ay at yu yàgg ci xilaaf ak Cheikh Salih Mbacké daan dundal guddi gàmm waaye daan ko dundale ci beneen barab bi yàlla dogalee Cheikh Sidil Muxtaar nekk xalif général des Mourides ci la jox ndigal daayira Muxaddamatul Xidma ak daayira Turoru Rayaxiin ngir ñuy ànd dundale gàmm gi fii ci jumaay Touba booba ba léegi ci la daayira Muxaddamatul Xidma nekk gis ngeen nag tey jii di bisub gàmm ci atum 1446 waaye itam dëppoo ak 15 septembre 2024 di bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku juddu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbooleem matukaay yi nga xam ne ci wàllu organisation ci wàllu culture ci wàllu social ak domaine yu bari daayira bi daje na ci ak daayira Rawdu Rayaahiin ba jël ci ay matukaay gis ngeen xayma bu taaru bi nga xam ne moo nekk ci esplanade jumaa ji nga xam ne fi lañ fas yéenee dundale guddi gi naam sax dañ koy dundale ci biir jumaa ji yëpp waaye nag comme ci jamonoy nawet lañ nekk looloo tax xayma bu yànj bi ñu def ko fi ngir mbokki taalibe yi man fee nekk ba euh, taw walla lu ñu demee du du leen gàllankoor ci gàmmu guddi gàmmu geeg ni ñu koy dundale mooy fas yéene cee roy Cheikhul Khadim ni mu ko daan dundale ci njaareem muy ñetti kuréel yooyu ñu xam kuréelu jazbul xulub kuréelu mawaahibu naafi ak kuréelu muxaddamatul amdah ak benn buntu ci barzan jiyu buntu barzan boobu sëriñ euh, Afi Boussa al imam fas yéene koo ànd ak sëriñ Ahmad Badawi moom Cheikh Mahamadul Fadal ak sëriñ bu Jatara sëriñ bu Boussa al imam mooy njiitu daayira muxaddamatul xidma sëriñ Ahmad Badawi di njiitu daayira Rawdu Rayaahiin ñu fas yéene koo ànd mboolem commission yi daayira Muxaddamatul Xidma itam gis ngeen leen ñi ngi ci liggéey bi ñii ñi ngi ci organisation bi di waajal barab bi ñi nekk ci wàllu sonorisation bi ak éclairage bi ñi nekk ci wàllu audiovisuel bi waaye tam waa organisation nekk ca waañ wa xam naa di ngeen gis image yooyu ngir waajal xéwal yi nga xam ne moo jëm ci gàmmu bi kon daal mu mel ne euh, waajtaay foofu lañ ci tollagul bu ñu demee ba guddi nag ci la gàmmu gi di tàmbali la ko jiitu am ay ñàngu yu ko jiitu ay sëñ Cheikh Gueye Mayib sëriñ boole Mbay ak yenn kuréel yi bu ñu noppee dañ soobu ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñuy lay tayal gàmmu gi ngir di waxtaane yonent bi salaay salaam ren nag sax dañ cee boole nag saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi ci woote bi lislaam bi muy suluku saxaabati tijaahan nabi salaay salaam loolu la ñu war a war a waxtaane muy melokaanu saxaaba yi ni ñu meloon ak yonent bi salaay salaam moom lañ fas yéene waxtaane ren ci ci ci gàmm gi jógee ci waxtaan woowu nag donc doogu a sóobu nag ci gàmmuñ wi muy ñetti kuréel yooyu ma waxoon ak kuréelu barzan bi fanaane ko waaye du ñu fàtte itam nag fukki kaamil ak ñaar yi nga xam ne sëriñ bi daana ko def daana ko def lu fukki kaamil ak ñaar yooyu daañ ko jàng jàng itam diwaanu amdah diwaan quraaniya diwaan xasaid alxadimiya yi nga xam ne moom la tagge yonent bi salaay salaam kon daal waajtaayu gàmm gi mi ngi noonu euh, incha allah ñi ngi ci euh, euh, mise en place bi waaye bu ñu demee ba guddi gi itam danañ ubbi gàmm gi nag war a waxtaanee nag li nga xamante ni moo aju ci gàmm gi incha allah fii ci MKTV jërë ngeen jëf. loolu